boobu mhm. mais Ousmane kon xam nga ventilo dina la may ngelaw clim bi mu ngi ñuy jox sedd mhm. mais dafa tàng mhm. ñoom clim leen dañ lay seddal te duñ te duñ sedd ñoom d'accord mais kon loolu mooy oustaz kan lañ ko war a tabb kan lañ war a wax ni kii mooy oustaz actuellement Sénégal oustaz bi ñu soxla mooy kuy jaxasoog société bi di nekk ak ñoom di dund la ñuy dund mbiram du nëbbatu muy jàngale bum ñu jàngal waxi benn sëriñ neew ma sëriñ seen wax baaxul de mais nen ñu jàngal sëriñ si ban yoon leen jaar ba doon sëriñ mhm. xanaa xamoo am na ñu gàtt ba dañu foog ne diine Touba rek la nekk wala Medina Baye mhm. mais seen compréhensif yeggul ci ne Medina bàyyi pàcc la ci diine comme ni Touba nekkee pàcc ci diine ñu am na ñu bëri xamuñ loolu mhm. ba suñ lay wax del la naan sëñ Touba mu ne d'accord wax sëñ Touba yëpp dëgg la yëpp dëgg la mais ñoom am na fuñ tibbee wax ñu loolu ndax ëllëg buñ demee ba gis sëñ Touba ñu ne moo wax te du dëgg ñu xam ne den sosal sëñ bi waaye sëñ bi waxul lii hmm. mu ne comprendre ba ëllëg suñ ne bàyyi mu ne te su dul dëgg ñu xam ne lii bàyyi waxu ko ndax Cheikh Tidiane dafa wax bu rëy hmm. daf ne ëllëg ci biir dañ ko ne ndax dinañ la sosal mu ne waaw waaw dinañ la fenal mu ne waaw waaw dinañ la waxal loo waxut mu ne waaw mu ne ko kon lu ñuy def hmm. mu ne lépp lu ngeen dégg na maa ko wax te sunna bañ ko rek waxuma ko mais bu sunna na waaw rek na leen waaw mais léeg ñu wax la histoire ci sëriñ si sunna danaan déedéet te soo ñu rey la Mhm. gis naa ko toog ci télé. Mhm. tuumaal sëñ Babacar si te yëgu ko. quartier général bii laa ko seetaan daaw je. ko toog ci télé. Mhm. xaw ma kan la waaye mën naa fàttali ko wax ji. mu ne dafa am ku am ngént. dem ci sëñ Babacar si. ñaan loo ko mu ñaanal ko mu wàcc ci gaar bi for saa nangam bi. nangam bi la dem jëndi xar ngént. sàcc la sàcc la waaw. l'islam daf ne boo foree. wëral nga laaj. Mhm. boo dëkkul ci dëkk ba demal ci chef de quartier wala imam na ko lii laa for. Mhm. buñ ko annoncé un an gisuñ ko ñu xaaj ci saraxel borom jox la sa wàll mais for rek dem sàcc nga. Mhm. ku la nekk ci gaar ba mu ngi ko réere waru ko waroo ko di. da nga tuumaal sëñ Babacar te góor googu am na leer goo xam ne ñaanam ëpp na loolu. dëgg la ma gis tam ñu tuumaal sëñ Touba. ñu ne bureau ba ca ndar ñëpp a lekk xaj ba mu des moom. tuuma bu rëy la. Hmm? tuuma bu rëy a ngi noonu. xam nga lu tax. lu tax ba muy dem ci bureau ba. Hmm. doonutoon doomi maam jaara xalifatullahi la fil ardi xutbu la. Hmm. lu yàlla di wàcce moo koy yëg. ramu jaam ñi la ko yàlla joxe maqaama. ndax foog nga ne dina nangu moromi jullitam di lekk xaj mu toog. kon luy njëriñam. tuumaal nga sëñ bi. sëñ Touba mooy ki ñëwoon ginnaaw lor yëpp mu ne man baal naa ñëpp na yàlla baal ñëpp ko koy sëñ Touba. mais pas toog ay jullit di lekk xaj te mënut leen a wax ne lii xaj la boppam rek suñ tubaab du tubaab. Mm-hmm. Abdullahi la jaamab yàlla la. ma gis ñu tuumaal ko Baye Niass donc yii laa bëgg ustaas yi di ci si nit ñi. Mm-hmm. ñu xam ne suñ sëriñ sii. baax neen lool. Mm-hmm. waaye kenn rek leen nag ci jullit ñi. kenn ci ñoom du yonantu. neen ñu jàngal li yonantu indi ak li al alquran wax. ñoom ñu bëggee leen suñ leen mënee roy roy leen bu ñu leen mënta roy roy yonent bi fii koo fi roy du problème moo tax ngay gis murit baax te du tijaan mm-hmm. nga gis tijaan baax te du murit parce que ñoom roy leen du force mm-hmm. ki roy doonu waajib ci yow mooy yonent yàlla muhammad sa alayhi wa sallam mm-hmm. ndigali ki nga war a def mu neex la mu naqari la mooy sa borom bu ko ñëpp xamoon noppoon mais dañu ñëw di naxanteeg yow xam ne na yow sañ Tuubaa nga bëgg ñu naan la bi mu lalee géej jaar bi mu nanga mais di la wax xuraafaat yoo xam ne yow sa bopp da mm, mm. doo mën a wax déedéet doo bañ noonu leen koy waxee ci bàyyi waxee ko fépp dem ba tey sëriñ si lañ doon dund ku ko wax da ngay géey kenn du la dégg dem ci télé bi wax ni sëñ Tuubaa nekkee woon maanaam fi mu jaar ba am xam-xam mm-hmm. coono yi xam nga ne sëñ Tuubaa am na diir bu yàgg mënut am daal moom sëñ Touba waaw mhm. li ko turu yàlla jaral mu dem ba Sarsara jëli ko fa mais lii la ñu war a waxtaanal nit ñi ñu am itte mhm. mais sëñ Touba bi mu demee ba mat ba yàlla xéewalal ko xéewal yooyu waxtaanal ma ko dégg rek laa ci mën a def mais munoo déglu xéewali sëñ Touba ba am ko te juboo munoo mhm. nekk benn fenkat wala yow nga njaaloo te sanguwoo janaa ba sa toog naan jërëjëf sëñ bi ah. mais ba kañ comprendre nga fi may waxee donc yii la ustaas si war a liggéey ma wax la dara ban développement moo am ci réew mi ñu ne lii oustaz Cheikh fi def. ñu ngi def social de ñoom ñu ngi tabax ay daara di jàngal xale yi. oustaz. waaw oustaz Modou Fall. wala ñenn ci ñenn ci oustaz yi. ñenn ñi waaw. ñu ngi woyaan ñu leen di dimbale ñuy tabax wala ñoom ñu ngi liggéey ba am tabax. ñoo ngi tabax yow lan ngay woyee woyaan. Eh, dama gis benn jour eh, Pape Sassi Diallo jox ki nga xamante ne moom mooy oustaz Modou Fall. enveloppe ni ko Viviane moo la ko jox bu ñu jugee Bercy. te da war a tabaxee dara lan nga gisee jëf jooju. xanaa bala bala ma yegg si foofu. Hmm. ban oustaz la ñu gis hmm. mu nekk ci àll bi di bay wala di commerce ba am alalam jox ko yàlla ci lislaam man gisuma ko mais am na mhm. mais ñii toog rek maa ngi gërëm di jox na ma tonni sama jox na ma nàngam mais loolu wayaan ci turi lislaam la mhm. daara jooju kañ leen fay jàngal xale mu mën a critiquer ministre bu luubal mhm. wala jabaru président bu lubal ndax moo la dimbali. Mm-hmm. ku la abal gët fu ko neex ngay xool. donc man gëw ma loolu. Mm-hmm. beneen ba ama Viviane jox Modou Fall mu gërëm ko wareef la. Mm-hmm. waaye oustaz buy réclamer musique ñu jox la xaalis musique nga lekk ko dafa xaram. non réclamer wul Viviane moo ko may xaalis pour mu dem dugal ko ci daara léegi ma wax olof. parce que xaw ma sa lan mooy réclame. Modou faal moo doon wax ne. musique dafa xaram. waaw. moo ko wax. Mhm. musicien tëgg yow nga teewal dina mu jox la xaalis musique nga lekk ko daganut ci yow. mais moo en Modou Fall en personne. Mhm. am na droit ku ko jox mu gërëm la. Mhm. loolu moom foog ñu jaa tàqale mbir yi. non question bi ci gërëm gi. mais fa mu jëm mooy question bi. parce que lam ko ko joxee mooy dafa nekk ci di tabax daara. daara la jox ko alal boo xamante ni ki ko ko jox. Euh, bon dëgg la wala du dëgg mais tooñ na ko ne ko. ci xaalis dëgg la xam nga doon dëgg Pape Cheikh Diallo moo ko ne. voilà. xaalisu olympiade. <laughs> voilà leen la jox préciser nañ ko ba mu leer. voilà ok mais foofu mënoon na dawal dignité. Mhm. delloowaat ko na ko man lu ma lislaam mayut bëgg ko. Mhm. ndax jàngal xale yi ci su bi jeexee comme àdduna yi li Baara Ndiaye ñëppay sóob. Mhm. nga ne ko jox ma suma euro. mais ci kanami nit ñi Pape Cheikh daf ko piéger mu nangu. te loolu day wàññi crédibilité ngóor soosu faal. mais mën na ko tabaxee daara su ko xam nga mooy li ma la wax rek jeu jeu intelligence la sénégal yi nekk. su doon man daanaan. dama koy delloo. boo ko defee ma ne la jox boo jëlee parce que lii moo nekk Sénégal. <laughs> Ah, kii nee na Thierno Diallo nee na macha allah da ngaa bari xam-xam ndax da ngay jàngale xam-xam sa kër ndax moom bëggoon na jege la euh, ngir nga jàngal ko xam-xam. Euh, dafa des rek ban xam-xam la bëgg a. Ah. Mm-hmm. <laughs> ndax yi ngay jàngale dafa bëri. waaw li may jàngale dafa bëri man damay jàngale sëy damay jàngale àdduna. damay jàngale mental. comme mm-hmm. tey suñ la xasee rek mu métti la. Mm-hmm. dama lay dimbale ba buñ la xasee da ngay bëgg Euh, d'accord kii nee na nga wax ko. mais loolu dimbali wax jox ay astuces pour ñu ñuy seetaan. Mhm. parce xam ne réew mi réew la boo xam ne xas tey dafay yomb. problème mu sëy sax mhm. xam ne rek koo xas. léegi ah, nga ma ko ñu commencé. waaw <laughs> pardon pardon ñu ñu ñu ñu. nee na ñëwal Cheikh. voilà tontu boobu rek jégal ñu. ma li ma bëgg a comme li ma li ma bëgg a wax mooy. Mhm. suma jabar par exemple. bi ma ko takkee bés daf doon am problème. Mhm. suñ ma saagaan wala ju xas ma. Mhm. Mhm. ma toog mu yàgg ma ñëw ma ne ko lan la mu ne ma dara ma ne ko yëgoo xew mu ne ma déedéet ma won mu ne ma ko bind li ma ne ko mag mu ma yëgu ko ma ne ko nii la nag loo yëgalul sa bopp rek safu euh, ma ne ko nit ki clavier am la am li muy santé rek la ci mën a bind bu santé mbégte mbégte lay wax bu centré musiba musiba lay wax donc yar naa ko mentalement ba bu gisee ñu xas ma moom ma koy wan vidéo mag di su ma jabar ma ko indil mhm. xaw ma ko woon mhm. moom mooy connecté ba na ma am déggal kii lu ma ma seetaan ko ñu kaf ree mu jeex mhm. donc da lay dimbale nga dem ba xam ne ki lay xas xasut la yow dafay indi yëg-yëgu xolam ci yow nga classé ko avancé moo tax man su may commentaire yëpp laay seetaan Mm-hmm. mais yenn saa nit ñëw saaga la ndey nga fay ko mu supprimer commentaire am mais yow ñeme woo saaga ndey ba pare nga saaga ndey jàmm. Mm-hmm. man su ma demee bay saaga damay ñeme saaga. Mm-hmm. su ma demee bay xuloo damay ñeme xuloon. donc mentalement foog Sénégal defaru sinon li muy yàq ci société bi bari na pardon dégg naa ci say biir jàngale nee da ngay jàngale sëy di jàngale yeneen ak yeneen. Euh, sëy yaakaar naa façon bi ngay jàngale yow peut-être pratique lay doon wala théorie. laajte ku xamul lu ko leer mooy laajte. théorie lay doon wala pratique. ni may jàngalee sëy non sëy mënoo koo jàngale pratique. waaw <laughs> mënul ne moom c'est impossible. vraiment ah mais moom nekkul lu bees. mu ngi mel ni kaay ma tëddee la kaay ma tëddee la ko mais pas jàngale. Mhm. boo doon jigéen ma war a koo jàngal pratique mooy dama lay ah du noonu. donc ba nga xam sa sa façon. jàngale ban non damay ñamle sëy damay jàngale sëy laa <laughs> foog mu kon kon théorie lay jàngale waa de Fama kase nee na tontu woo message am. Ah. Euh, kii am. commentaire am nee na moom am na jëkkër waaye jëkkëram bu wàccee ngoon gi da koy akolaat fóon ko. te loolu du fekk dog jot ndax loolu mën na. 18h jàpp 18h jëkkër loolu lay laaj moom léegi Fama leer na je pense. na ko bu mu ci yem na ko simbi ba mu set mu sang ko Hmm. avant dog di jot. waaw dagan am na ku ne ma sa digganteeg Adji la sa digganteeg Adji Mass tam koy dégg ci maa koy lire ci commentaire yi amul problème moom. parce que récemment def ngeen plateau yi ñaara. Eh, nit la ko xam ne dañu tase plateau ma ji ko orma ak bu rafet. Mhm. you know Jamra porté ma plainte jël ma mu wax ci wax yu ñaaw. Mhm. xam nga nit bu micro tàkk. Mhm. ba nga wax sa nit musiba ndax bu fayee rek ngeen des mhm. doomu adama boo xam ne xam nga ko en personne mu deflante yow teraanga mu nekk ci yoon même bu doon sa noon waxal lu rafet mhm. mais Ahmed Cissé nañ ko répartir yóbbu ko Gambie dafa am danger parce que jàngul Gambie Sénégal nan ngay waxee ñu génnee benn doomi Gambie yóbbu ko ñaata sénégalais nekk Gambie rey fa nit mais dañ leen di tëj seen peine ba pare ñu continuer liggéey wax boobu du lu rafet ñaareel ba tegu ci nañ ko tëj ba damm caabi ji te muy jigéen Mbadj jur ñu jur ko. Mm-hmm. en fait mën nga commentaire ci li nit ki wax. Mm-hmm. neel waxam bi bon na ñaaw na mais pas personnage su nit ki. Mm-hmm. comprendre te Sénégal dafa xat. te man ku dugg ci man bu ma naqaree ma xam la. amul maslaa sax. su fekkoon tese wuñ plateau. non dina doon xam ne maa ko gën a sañ fuuf mais biñ tese dafa am kers mun tese gisa waaw ah, parce que. défaut de communication la def. waaw xam na ko bu baax. Mm-hmm. mu a sigi. Mm-hmm. da nga mere waaw wax na faale wu ma ko parce que man du ma triser. Mm-hmm. mais dama dem ba xam ne comme gêné na rek réccu na. waaw nit ki bu la defee lum lum réccuwul du gêné wu. day def sama fu. donc tey aji maas. ak ma sàmba ma demba li ñu war a def bu ñu nekkee ci plateau tele yi. nen di commentaire jëfu nit ki. ak waxu nit ki mais pas personnage su nit ki. loolu c'est très dangereux. Mhm. te man am naa mbokk aji maas maag moom du ñu nawle. Mhm. diine jiñ bokk maa ko ci raw.